بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السلام عليكم mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen balu xaq di leen baaxee ñaan goo xam ne ku koy saxoo doo am tiis doo am njàqare te moo di fatiha salaat alfatixi astaghfirullaha juróom-ñaar fukk 70 laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimina 129 boo koy sikkar nag da ngay jiital 9 teg ci 20 mujje 100 yi ku koy saxoo doo am tiis doo am njàqare yàlla yàlla subhanahu wa taala musal ñu ci tiis ak njàqare laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimina nga koy sikkar 129 yow mi am tiis ak njàqare inchaa allahu dana dañ yow mi ko amagul nga saxoo ko inchaa allahu doo ko am ngeen àndoon ak seen mbokk Oustaz Saalih Ñang ci yooru yooru aljuma wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi